loolu dina neex trop dina neex. bu ngeen ko defee grand théâtre di ngeen xam gis-gis. en toute sincérité. parce que show lay doon nit ñi xam nga gis sa femme strat di nga gis kuy wax ba plongé. waaw <laughs> mais cher cher dagguma mais li ma lay daggee nii jar na ko. <laughs> yaay bu sekk yaayu. PDG Bougane mm-hmm. moom laa bëgg nuyu. merci ma bëgg torop mm-hmm. ko donc maa ngi koy mais mais mais dafa am benn affaire bu am solo boo xam ni. Mm-hmm. mag ñi dañ ko doon def léegi amatul muy dañ doon réunion famille dañ doon réunion trois fois ci journée bi. réunion yooyu moo amatul. réunion yi mooy ndékki añ reer. ñu bokkandoo benn benn bool toog waxtaan. suñ daan ndékki fekk ci fajar gi sa papa dem na julli ji ci jumaa ji. ñu ne ko ah góor gi dégg nga Ousmane la mu def Ousmane de li mu def tey ci guddi moom jekkul rafetu ndax diw la jàppoon dóor dóor yu méttee métti métti di ba faatu sax mën na ci. bu ñëwee di ndékki su boobaa dañ toog ñu ne ah Cheikh démb di li ma def nga li ma dégg def ko dégg jekkul rafetul. ndax da ngay am nawle kooku day maag ah. baayam kóllëre la ñu àndoon yedd la ci ndab li yedd la ci ndab li ba da ngay am kersa doo xam sax nooy lekkee mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu paree dem jàngi maa ñu dem ca tool bu ñu ñaatee añ ba pare kenn ku nekk dégâts boo def ñu waxtaane waat ko ci boolu añ bi mm-hmm. reer la même chose ñetti réunion yooyu la ñu amatul léegi kenn ku ne day jëm tibb lekk sa morom tibb lekk tibb lekk tibb lekk dañoo tas réunion boobu amatul donc foofu dafa bokkoon ci éducation de base bi ñu daan tàggatee doomi aadama mais dafa ay kàddu yoo xam ni. ñun bi ñu nekkee ndaw du rëy ci ñun mais boo demee ba màgg am jabar ami doom kaddu yi day rëy ci yow. Mhm. lu ci mel na xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. Mhm. tolluwaay la rek beneen bi ci tegee euh, borom karaw gu ñuul ñàkkul dara. Mhm. da topp wax jooju ba bee jàpp. doo am sax doo am sax doo am sax doo am sax kii doo am sax velo ndaw du teel a da ngay topp loolu ba. ba màgget fekk fekk màgg nga màgget beneen bi ci tege mooy que ne tëj saison man bi ma nee ba am jabar am doom ci laay doog a rendre compte wax jooju dafa garaaw. Mhm. parce que doome aadama koo xamante ni si li li sëñ Abdou Lahad Mbacké daan wax. Mhm. doomi aadama da ngaa necc li da ngaa necc liy jeex mu yàddu yow mi doomi aadama da ngay jeex. Mhm. di fekkaat beneen dund gudul jeex. bu la yàlla dimbalee ki la gën a jege faatu nga teewee ko wala. ki la mag faatu ki nga maaseel faatu wala koo mag mu faatu nga teewee lépp ba dugal ko ci biir suuf am na lu bëri loo xam ne dina la yee ci àdduna ne la wan ni la ah baaxoo baax bi tax yàlla bàyyi la fi bopp après nag jëf yi nga doon jëf nag ci lu ñaaw parce que lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax euh, yéemu na ci ndaw lu jaarul ci ndaw parce que boo jaarul ci ndaw rek boo demee ma nekk mag moom da nga koy jaar te boobaa day gën a yées parce que am na loo xam ne jàppul mag tey costume cravate bi may sol nii wala boog ma sol euh, xale bu jigéen bi def mini greffage boo ne ma nekk mag dootu la jàpp boo ko defee da ngay soof moo tax ñun ndaw yi dañu gën a xoolaat suñu bopp xam ni dañoo ne ci dund goo xam ne dafay jeex ñu war a fekk beneen dund goo xam ni dee du ko jeexal mu yowmal xiyam sa jëf rek la fay fekk donc tëj saison moom baat la boo xam ni man sax dama ko ragal wax dëgg yàlla naam animateur la damay mbalax ba mu neex mais dama ragal tëj saison yaa Seydaa nag contexte bi mu waxee xëy na nit ñi dañ ko comprendre mais nañ ñaan yàlla ku tëj saison yàlla ko tijjeeti. amiin waay. ku tëj saison yàlla boo ko tijjeeti. amiin nañu yàlla boole ci ñooñu nga xam ne bu ñu tëjee saison. dootu ñu ko ibéeri am na ay xale yu am na jigéen am na ay xale yu jigéen nga xam li may wax ni expérience bu rëy laa ci am. Mm. am na ay xale yu jigéen yoo xam ñoo dàqoon a baal. am na ñu ñu ma ci xam man dañ doon ci mbedd mi lañ doon nekk di jaay sax mais bi ñu see ci man. Mm-hmm. dama leen a dalal. Mm-hmm. ne leen li ngeen di def ni lu baax la parce que loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam. Hmm. am na ci ñoo xam ne doom mi ñu am sax mooy loolu. ci ci wàll la dañoo sori woon ci àddina mais bi ñu ñëwee dama leen ni li ma jàng mooy laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamian li ngeen def nii doo dara ci yàlla xam nga yàlla la bëgg ku yëg ni danga nga yëg ni man mii kat kaccoor laa akamaa nekk kàccoor hmm. waaye gëm naa ni yàlla mooy sama borom dafa am benn woykat mu ne ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأحمسي أتى أسريا دخولي تحت حولك يا عبادي وأن سيرت أحمد للنبي nee na moom li tax muy bëgg moom ba mel ne mi ngi dox ci biddiw boobu ñuy wax Suraya benn biddiw la boo xam bu génnee day muur biddiw yëpp nee na dafa kontaan bi mu déggee wax ji ba mel ne mi ngi dox ci kaw biddiw bi xam nga lu tax mu ne li yàlla ni yaa ibaadi yéen samay jaam mhm. nee na yàlla sànniwu ma donte damay jaay sama bopp donte damay naan sàngara donte wëyu laa donte sàcc laa donte ku bon laa ki gën a bon ci doomu aadama yi yàlla saadi moo parce que yàlla nee na yaa ibaadi dëgg la nee loolu daf may bégloo bi ci des mooy wa an sa yarta ahmada ali nabiya yàlla boole ma ci xeet yoon ci yàlla muhammad mi nga xam ne ñoom njaase mii moom la ñuy tagg nee na su ma xalaatee li sama xel day daal xale yooyu bi ñëwee ci man dama ni leen baax na tëj leen ko tëj leen ba leen dama ci def leen xale yooyu tey boo leen gisee tey dangay xam ne ku ne nañ damay tëj gunge ko rek su rëccaatee tam mën na ñëwaat parce que jeunesse ku ne da nga cee jaar ñu ku ne ñun sabari nekk Grand Dakar ñoo ko daan toj. ku ne da ngaa jaar ci da nga cee jaar mais dañu daan woo. weeru koor ñu teg ñu ci digg kër gi di ñu waxtaanal sama frère Bekaay mi ngi euh, France. ak ñoom ma Madické di ñu teg Grand Dakar ñun suñu ko ak cosaan ñoo jàkkaarloo. donc ko ñu Abu Kamara laa dëkk. super jamono ñëpp foofu la Taïba Grand Dakar fii la ñu jàngee alxuraan mais su weeru koor jotee dañuy teg. sama mag Pape Fall di ñu dinaa ah da ngeen di góorgóorlu ngeen jéem a ay sabar yi bàyyi li li bàyyi leen la di ñu entraîné ñuy muuroo ko def ay affaire bu ñu génnee ñu ñuy reetaan su su koor gi jàll da gis ñoo xam dañuy continuer ci affaire boobu am ñoo xam tam rëccaat nañu. mais am na ñoo xam dañ ciy des mu nekk loo xam ne xëy na terme bi comme nañ ñu ko waxee terme bi mooy tiital nit ñi. mais mag ñu njëkk sax dañ daan tëj saison ba tey fi ma nekkoon. <laughs> mais mais daan naa gis tamit bu ñu demee ba toll ci semaine woor wàcc da nga daan gis benn màggatum géwél bu daan jël tama di taasu woor wàcc woor wàcc bis boo woor doota ko wooraat woor wàcc <laughs> ah. ah waaw mag ñi dañ daan amoon na ah lépp ñun eggagul ah, bu ñu demee ba nga xam ne ñu ne ñu ne loo woor doota ko wooraat da nga daan gis benn màggatum géwél mu neex ci ko bokk tama di bige loolu naan woor wàcc woor wàcc woor wàcc xam nga lii bis boo woor doota ko wooraat woor wàcc yéen loo leen doon def xaw ma xaw ma kon seex li muy wax nii ci man ah, yow fekkee woo ma a ah, seex moom kii ma a ah, seex a xam seex xam mais mais am na ay am na ay internautes yi yuy wax naan il faut que Oustaz Mohamed Mbaye leeral li ko père wax. day ñëw su amul yàlla bu ma gisee borom Touba. kan la Oustaz Mohamed Mbaye tegoon te wax yow yow waaw bàyyi waay yow waay man kay man man defu lu ma ko. waaw bu ma de su leen neexee ba keroog may jógee seen TV. bu nu dindee ci lii. dama ne ba keroog may jógee seen TV bu nu dindee lii. mais plateau bu mën a am ci àdduna. Mm. saa yu nit ne ba xel ñëpp jóg xel yëpp dem ci man. dëgg waaw xel yëpp dem ci man waaw ba kook sama empreinte la sama slogan la. Ah, ba kook sama slogan la. Sofia. waaw ah. internet yi ñu ngi kaas nee leen père bu leen ko yeewal nee leen ko bàyyi. nee leen su ma yeewul ma wax ak moom. parce que ndax li may wax lu ma gis la. Ah. lu ma gëm. mais Cheikh Cheikh Cheikh da nga ñëw bëgg a jaxase sama. jaxasewul dara de Cheikh di jaxase père ak Oustaz Mouhamed Mbaye ñuy xuloo waxi jàmbur lay nettali. de xuloo wul kat nga ne lan kii mënul dawal ñeenti ru yooyu. sama ne su fekkente ne amul. su fekkente ma gisee borom Tuubaa. dama ne moom nag Mbaye mais mënul dawal loolu. bu lax loolu mel am Mohamed loolu amul. ma tudd Abou Bakri. ay Abou Bakri say laa ko oh, moto boobu am ñeenti tànk ilaha illallah te oustaz boo leeral ak yéen nag xam nga dama ne lii dama ne lii am na ne alaaj alaaj alaaj alaaj alaaj oui oui oui. waaw. lii ma la mu am la. lan nga ne. seen TV. waay waay dama ne. Bercy. yow. Bercy ñu la Màkka ak Bercy bu la gën a. Bercy. léegi kan moo ma ko waxoon yow. kan moo ma ko kan moo ma ko waxoon. Bougane la Màkka ak Bercy tànn nga ni Bercy ngay def. Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye da ngay da nga may déglu. Bougane moo leen nettali loolu. ah lii ko kon am na.

sëñ Mor Adé moom jàpp jeex. oustaz baa jàmbur. mais mais mais du ñu déglu. mais oustaz non internet si dara. l'école su ma toogee dootuma wax. si internet yi. ma toogee dootuma wax. ah dana leer. internet yi xamuñu si dara bugaan day dañ. maa ngi ñaan ci barke sëñ Mor Habib Mbacké. su fekkente ne ba may dem Bercy. Ah. man ak yow waxante nañu. nga ne ma. Makka ak Bercy bu la gënal. ma ne la bési moo ma yàlla bu ma dëgg sama tànk bi màqa ci këru àdduna su fekkente ne waxuma la loolu ren jii ci màkk ji yàlla naa dëgg sama tànk bi màkka ci barke Cheikh Mahmoudou Abi Mbacké te du jógee sa poos waaw ah. yow léegi papa kon boo demul màkk moom dina garaaw ren de mais papa instant yi yow xoolal Oustaz Mouhamed da la bëggoon a kii rek. ku bi nga ko jox la la bëggoon a sànni. mais Oustaz yaa ngi tooñ sam papa te loolu neexul. non non non dama ne su fekkente ne waxuma ko ko. su fekkente ne waxuma la loolu yow bu gaañ. ren sama tante bi yàlla naa langaamu ci barrière amiin Mouhamed alayhi salaatu wa salaam. te du jógee ci sa poos. te du jógee ci sa poos yow bu gaañ. ayca ayca gis nga. donc waa Codé bu nit la. gis nga te musuma def sëñ Maodo Habib lu ko naqari. musuma def sëñ Maodo Habib lu ko naqari. kon fanaan na mu ci géej gi ba tàyyi dama xas sëñ Maodo Habib ci jébbalu gi ma jébbalu ci yow. sos wii nu ma sosal. su fekkee amul sama tànk bi yal naa ko dégg Makka yal naa ziare Rasulullah su fekkente ne. am na yàlla du ma dëgg sama taaj ma. kon léegi yaa ngi bu la joxee paas nga dem. su ma su ma a du ma dem. ah barke borom Touba Mbacke du ma dem. dara jëy sëñ Touba du ma joxe du lii nga ma sosal su ma bëgg a joxee paas du ma ma dem de. bàyyi mu sedd dama la ko ñaan ngir yàlla. mu sedd man de ci plateau bi laa toog saag rek. léegi Alima si plateau bi laa ah, toog ci kii bala ma koy naan ba may fay. waaw man kii su ma ko naanee suba ñëpp naan ko. su ma ko naanee suba ñëpp naan ko. yow loolu laa amul jàpp léegi papa li sponsor la euh, ndox bi kayaar ndox bi. Ousseyn Ousseyn tooñ na benn tooñ bu baax léegi sama papa. dina leer kay tooñ na benn tooñ bu baax dama ne. dina barke borom Touba. Cheikh damaa doog doon na ñaanante yàlla. xadi Cheikh bu doon na ñaanante yàlla. non non non ci barke sëñ Modou Habib Mbacké. non non merci. ci barke sëñ Modou Habib Mbacké su fekkente ne.